di len balu ak di len bal ak euh, di gërëm ñi nga xamanteni ni tay ji li tax nga tok fu mi série bi ñom ñoo si jàpp en commençant sama famille sama soxna sama sœur hein ah, di len wax ne rek ne tay ji euh, bu fi yeen wa Sénégal la di gërëm wa IGFM ñëw bi ngeen fi ñew ak wa TFM en commençant par euh, Youssou di suñu directeur njagandour birandour di leen wax rek ne honneur film bi yëpp ak succès bi ñun dañ koy delloo waa Sénégal euh, ma faama. d'accord donc euh, ñu ne Wiri Wiri Wiri Wiri jaari ndaare pourquoi Wiri Wiri. waaw pourquoi Wiri Wiri tey euh, film bi wax na boppam parce que xool li ci nekk ci ay wiiri wiiri ay retournement de de situation donc xam ne film bi mënul woon tudd Cheikhouna mënul woon tudd Jojo mais wiiri wiiri rek la mënoon a tudd parce que c'est pour wane rek ne. aduna mom la terre tourne te montagne rek ñodul dajé donc lu way di def rek na nek lu bax parce que man nga def li ëlëk mu dem ba nga ak jëf ci bon joju bu féké lu bax li man nga dem ba ak mom te lool yépp yaakaar na ne gis nañ ko ci biir film bi. d'accord Wiri Wiri euh, ki bi mu am succès bi mu am yépp wa succès bi moy dañu jële ci nit ñi rek délo ci nit ñi parce que bo xolé ni histoire bi histoire réelle la ki ñu ko jox nekul ci troupe bi. ah nit ku ñëw la ba ñëw fekk suñu kër expliquer ñu problème bi ñu xam ne kii lu muy dundul ndax maam faama euh, problème ak feebarayam da nga koy weer ñàkkul nit am ci solution te nit dina dund loo xamante ni si xolam léeg-léeg da koy bëgg a waxtaan nit wala léeg-léeg mu jox ko acteur culturel ñu joué ko au mois li nekkoon ci dënam day wàcc wala ku ko gis xam ne lu bon amul solo lu baax moo am solo bu fekkee def nga ko nga bàyyi ko wala bu fekkee defoo ko aussi nga nga éviter ko. d'accord est-ce que mën nañu xam euh, ñaata temps la leen jëlee pour ngeen bind wiri euh, wiri bi. waaw ñun déjà ba ñuy commencé rek am nañ base bi parce que ba mu ñëw nettali ñu histoire bi ñun téye nañ ko donc euh, maak Cheikh ñu liggéey ci def scénario bi donc dem na ba deux mois yoo xamante ni dañoo lëlu di di ci liggéey. après nag dem na ba dañuy tourner du jour au jour parce que euh, dañuy bëgg toujours rek di indil le thème d'actualité sénégalais yi parce boo xoolee ni wiiri wiiri bu amee euh, aji màq dinañ ci joxe ay leçons côté aji màq bu amee koor ñu def ko ci boo amee tabaski ñu def ko ci donc lu show lañ doon bëgg a tegal nit ñi tamit si euh, seen si seen si écran bi quoi. est-ce que mën demee woon ah parce que ku nekk rek rôle bu ñu la jox rek dugg nga ci biir ba mel ne yow yaa dund problème boobu. waaw xam nga tey boo boo jëlee équipe nationale wala club entraîneur bi boo xamee ay joueur am donc ku muy dajal rek adversaire am dina xam ne kat kii moom mën na poste bi kii mën na poste bi donc moo tax ba ñu amee euh, scénario bi rek maak Cheikh dañoo def casting rapidement ñu def euh, distinction rôle yi ku nekk ñu mën la cee ñu mën la cee identifier mais dafa am rôle boo xamante ne nag muy man bi ma joué ba man maa ko taamul sama bopp. parce que rôle bu àndoon ak yuuxoo la rôle bu and ak saga rôle bu and ak xas ah donc mané ne dal ça fait longtemps sénégalais yi dañ may gis nan ki moy sage film bi euh, troupe bi moy wax leçon de morale mané ma ne bi yoon nag bëgg na génn benen facette bo xamné Sénégal dinañ xamné il faut du tout pour être un un acteur quoi. vraiment nan nga ko dundé <laughs> waaw metti hein bon metti d'une part surtout sama côté famille ma len di jéggulu sama soxna. parce que am jëkkëru acteur dafa dafa metti di nga dégg lu ne di nga gis lu ne dem na ba sax moom day dem marché ñëw di ma indil li waa marché bi wax que ñu ngi naan naa dafa soof ah sa jëkkër ji mënul bàyyi sumbulu mi muy topp ah sa sa jëkkër ji tal tal moom aussi mu xam ne rek lii rôle la donc xàmmee na moom personnage ak ak personne donc mu nekk loo xamante ne aussi dama ci am mbégte parce que tey bu fekkoon jël naa ko doxul donc là du ma nekk parce que dama appelé pour être un acteur kon lu ne naa koy def. ban séquence nga joué mu gën la neex ci série bi. waaw séquence bi ma bari na sax mais damay jël ñaar rek wala ba ñett hein, nga permettre ma ko muy keroog bañ ma jàppee manote ma sama yaay seet si ma biir euh, biir prison ma xalaat lu bari que ne yenn. yenn yaay yi ñu ngi toog di di am lu leen metti seen doom yi ñu jàpp nga ah, seeti sa doom aussi mënoo kaa libéré bàyyi ko foofu loolu metti na mais ma fàttali ko si aussi sama yaay parce que moom ci dundam dafa am baat bu ma doon wax ne ma xool bi ma lay xool nii dafa baax ci yow que moo naat du nàmpal doomam da koy xool rek biir bi fees donc ba ma tollee si jeu bi ndey kumba ñëw Madre Pis may jéeg moom gisatuma ko man sama yaay laa gis moo tax ba ma ko waxee la ma sama yaay doon wax là dañoo mujj coupé sax parce que xaw na maa yéegloo waaw waaw sama xool tooy na trop quoi beneen bi aussi mooy ba ñu bañ may jàpp may tekki lam bi da ko jox sama yaay parce que lam boobu ma ko doon jox sama yaay neen ko bu jojo ñee nga jox ko sama propre mère bi gaañu loolu rek laa ko desee comme souvenir donc ku nekk la nga yëngatu si nga mën a rendre hommage euh, say wayjur waaw loolu marqué na ma beneen bi mooy jojo ak euh, papaam ba ñuy gisante sama m'a ne quelque am na ko toog bëgg a gis papaam wala ku toog bëgg gis doomam te mënul nekk soit que gàcce la wala problème loolu aussi marqué na ma loolu ci film bi. bu taxee nga ah? ñu gis euh, <laughs> trop stratégique euh, sa neex tooñ na la nga ñëw nga ne danga koy jéem a baalu di dox si maanaam indil ko ay guro yu ñu piqûre man inspiration boobu. <laughs> waaw xam nga rôle bi dafa ànd ak euh, dafa ànd ak caay-caay voilà te gis nga maam Fama artiste moom rôle acteur boo amul caay-caay yu bàyyil soleil levant loolu certes moom la ñu am benn plus ci li ñuy def mooy dañu am caay-caay ah rôle bi dafa ànd nag triant ak calcul mental ah parce que ñëw ne da nga dof te dofoo loolu defe naa ne ba dut procureur ndax commissaire ah mais yàgg-yàgg rek dañuy wane ne euh, dëgg mooy mujj koi parce que war man waruñu moon tàccu fenn ci film bi dama am sam benn copain gémien la dama damay jàng ci ñoom nag si role bi dañoo défilé ma seetaan leen mais dañoo tàccu ñëpp ñoom ñu yuuxoo leen gaynde yéen GMA yi kenn tàccewu leen mu ne ñun bu ñu tàccoo suñu chef danaan liggéeyuñu mais bu ñu yuuxoo mooy anne boobu yëpp assuré nañ sécurité Sénégal donc rôle bi aussi loolu laa si doon gis que ne àndul ak tàccu ay yuuxoo la àndaloon. d'accord donc ci fin bi euh, ñu gis ne que yow ak Père Zora ngeen dem ba bëgg a xaritoo seen sourire boobu noonu ngeen doon ree la la victoire. waaw xam nga xaritoo forcé la rek am na Sénégal na xaritoo forcé kaa ñu bëggante noonu pour nax diw am na parce que aussi maître victoire bokkul woon ci bi ah. li bokkoon scénario bi moy li ko père Zoro doon wax nan ko victoire défaite mais loolu ça m'a fait rire ba ma ma bëgg a bokk ci comédie bobu sentir ne kii mi ngi ma doon wax naan je vais te sortir de là alors que tay fekk si ne ma fa mom mi wut ko ko génne donc ça fait rire quoi te doomu adama la j'ai may exploité loolu rek quoi. d'accord donc début bi ñu waxoon 150 euh, 100 épisodes ngeen dem ba 150 épisodes. waaw loolu dama koy jël exemple si suñu patron euh, Youssou Ndour parce que léeg-léeg euh, muy taxaw di way ci kaw seen public bi kontaan ne ko biis biis mu woo gars yi ne leen gars yi dóoraat sound bi ah am na ci Wally Seck Pape Diouf donc loolu daf ñuy dal si jeu léeg-léeg ñu dem ba natt leen ne fii la ñuy yem population bi ne non on continue ñu continuer parce que tey dañoo dem ba wiiri wiiri nekk communion ak sénégalais la preuve mooy taxaw bi mu taxaw damay sentir ne gars yi wéet ah, boo génn leen di vente dañu naan la mais tey bu ñu tegee sax bande annonce war a def ay interview gars yi dañuy yaakaar ne wiiri wiiri mooy commencé dañuy daw seetaan ko donc kon ça veut dire que ne li def moo baax rek ñoom ñu bëgg ko donc ba nii nii nii moo taxoon ñu ne référendum jox nañ Sénégalais yi parole bi buñ nee nañ continuer ñu continuer buñ nee nañ arrêté ñu arrêté yow loo woote si référendum. man kay xam nga ne waaw man dama leen a namm torop damay wéet. waaw waaw parce que li des <laughs> li des bari na nit ñaa ngi naan sumbulu dee na deewul. waaw loolu. man tey spectateur laay nekk mooy maa ngi seetaan est et puis bu dundee sax ndax dina nangoo sëyëg ñaar ñu bokk benn ndey ndax dina nangu ndey kumba nekk goroom sa dépend si sénégalais yi te man faa man prison laa gën a grave te maa ngi maa ngi jëm prison des na si sénégalais yi. non am na benn sequence boo xam te ne xam naa moo gën a neex sénégalais yi ñu ñëw la di la yóbbu prison ndeysaan euh, euh, soppe moo ngi xaw a triste la fekk sa yaay xalangu affaire di wane ne que ñoom tamit am nañ xol et tout ça nga ne ko ni dama yàkkamte yóbbu ma prison. waaw waaw parce que gis nga gis nga yombal xiyam sax dina fa am <laughs> yombal xiyam léeg-léeg yàlla bàyyi ñu su naaj boo xamante ne nii yow même booy dem safara da ngay bëgg ñu jugé la rek <laughs> yóbbu la mën kañ damay dem rek mën na ko yóbbu ma rek ay triste xewatu fi yóbbu ma mais waaye ça loolu marqué na ko parce que maa ngi joué ak moom sax mais maa ngi sentir ni kii li mu gis sama yaay def ko mu nekk nag soo devant li may wax rek ba ci MC mi gën a ndaw ba ci mag ku ci nekk doo demee demi mesure da ngay dem sa ba tey boo doon joxe meilleur acteur ci film bi dangay ngay am problème bi wala meilleure actrice parce que macha allah gaa yëpp ku nekk dem na à 100 pour cent. donc ñu gis ngeen invité yeneen artistes yi.

ah tey jii dañoo war a wane ne Sénégal am na ay doomam yu ko mën a représenté au niveau international ñun Sénégal amuñu concurrence que ne diw mi ngi fii diw mi ngi fii nañ fexe suul kële sullikee ñun Soleil vent ñun doxewuñu esprit boobu esprit bi ñuy doxee mooy luy neex doomu aadama yi kon buñ ñu demee ba toll ci dara ah donc baax na ñu yaatal pour wane ne li ñuy def ku nekk ñoom euh, xaj na ci Mm, euh, ñuy suñu grand nag yu baax muy Père ay Pape Faye soppe di suñu xarit ku ci nekk sekk nañu moom en dehors de théâtre bi ay ay ay wóllëre lañ quoi donc bu ñuy def dara aussi ba sentir leen ci lu ñu mën a def rek mooy woo leen ci te loolu la ñu borom kër gi sant di Youssou Ndour mooy dee leen yaatal dee leen yaatal te si loolu lañu ñu wëyee ba ba fii quoi d' accord comme ni ko xale yi di waxee ah succès seen yëf la macha allah euh, am na lu bari loo xamante ne des na lu ngeen di war a def euh, euh, ñu gis ne que chaque jour boo leen wootewee grand théâtre dafay fees ba ñu nekk si biti ñooy ëpp ñu nekk ci biir mën nañ xaar raxas wala. waaw léegi raxas mën na ne mais dañu li ñuy bëgg a njëkk a mooy fexe ba léegi képp ku jënd billet ñëw grand nga nga nga nekk à l'aise nga toog dugg parce que ñun ñuy sax saanu fee di mal ñu gis ku jënd billet nekk ci biti mënoo mënoo dugg. ah donc loolu dafa metti xamoo ñu ndax Tamba nga jógee wala Canada parce que Grand Théâtre ku nekk ay ñëw ah ñu ngi ciy waxtaan ak euh, borom kër gi di Youssou Ndour di Ndiaga Ndour bi nga xamante ne ni moom moo produire bi passé ah pour nga xamante ne au moins dinañ def chapiteau ba 3000 personnes dinañ ko mën a dinañ ko mën a jël raxas bi nag mën na nekk bitim réew parce que waykat yaa ngi dem Zénith di dem Dock Pullman di dem bersi donc fépp rek fu théâtre wara ag rek ñun Soleil Levant paré nañ pour yobbu ko fa euh, pourquoi pas Bercy xam nga suñu patron guerrier Youssou Ndour nee nañu fonce <laughs> bëgg naa leen laaj tamit parce que gis nañ ne que Wiiri Wiiri vraiment def na succès Sénégal dafa dem ba Wiiri Wiiri bokk ci ñoom mu nekk euh, fête société boo xam ne ñëpp ñu ngi koy dund est-ce que mën ngeen def bu gën a garaaw boobu waaw gis nga maam Fama ñun ku ñu xam dëgg-dëgg fekke taa ñuy mbappat di baax mbedd mi boo gisee Wiiri Wiiri da nga naan ñii génneeguñu dara donc dama naan wiiri wiiri essayé la woon rek ah ba ñu njëkkee génne euh, Mor Tadiange no askanu lawbe gars yi dañ ne Soleil Levant mootul génne leneen ñu génne làmb ji ñu ne sës nañ ñu génnee moor député ba Saneex ba tolof tolof donc ñun loolu ci ñu métier la affaire bi métier la ah. donc toujours rek nañu fexe ba di def plus parce que bu ñuy liggéey bi ñu ñu ngi liggéey ci loo xamante ni bu ñëwee bi dina gën a nekk au niveau ci li ñu nekk nii quoi. donc ñu bëri ñu ne euh, Wiri Wiri jeexagul parce que sponsor yi ñoo ñëw torop xam nga Wiri wiir ku xam Wiri Wiri xam début xam ne benn ñun commencé wuñu ak benn sponsor dix premier épisode wala huit yi li ñuy def mooy TFM vous offre donc du wii dañoo am sponsor doo ko def film sponsor dañ ñu fekk si te bu ñu leen bàyyee tamit bàyyi jeexal série bi indi leneen sponsor yi dañuy ñëw. bëgg nañ dal sponsor bu population la grave ah. ah, la parole donnée rek film <laughs> d'accord la parole donnée donc euh, en fait Alice dañ ko doon gis euh, ci début film bi Alice est-ce que mën nañu xam euh, lan bon Alice suñu xarit la suñu gaañ la. parce que woo nañ ko pour mu na certes après leneen lu mu ah, wax ñu ne que ne donc xëy na fii laa mën a yem ak yéen donc dama am ay activités yoo xam ne sa personnel ñu comprendre ko ci loolu mais ba fii amuñu moom benn xaar yàlla quoi vraiment. léegi série bari na dañuy gis euh, ku jug génne série et tout ça donc euh, ban conseil ngay jox tey ñi nga xam te ne dañuy ñëw rek bind film parce que ñi ngi naan des séries poubelles et tout comme euh, gis nañ série yu bari day yeete comme ni ngeen koy defee yéen ban conseil ngeen di joxe tey. waaw conseil bi wax rek mooy c'est bien série yi nañ ñëw. parce que tey ñun plus que monde cinématographique bi wala audiovisuel di téye baar bi loolu dañ ciy gën a kontaan mais nag nañuy xool continue ah di xool euh, euh, technique bi ah di xool jeu d'acteur yi ba nga xamante ne nii parce que ñuy seetaan ñooñu dàq li ñuy def man léeg-léeg ma liir commentaire boo xam ne dama naan kii ndaanaan la